kilifa kenn du ko yedd si mbedd ba président Macky Sall demee ba toog publiquement mu ni ba ñu ma waxi troisième mandat bi nan ko waxtaane si si si si si dialogue bi bon kañ faa mu nekkoon jox na fa waxtul nii wii nii non il a évolué dans son discours du dëgg du dëgg mhm. maintenant laa sa des te ma ànd si ak moom ala kilifa indi la wax ak moom si njekka mais mais c'est pas le seul problème mandat bi xëy na benn la waaw mais aussi de notre côté y a euh, l'affaire Sonko parce que euh, c'est quelqu'un boo xam ne jàpp nañ am na doole. te ñaari condamnation ñu ngi ci ndoddam jamono ji. ñaari mbir yooyu noonu. Hmm. Euh, parce que da nga ne plus jamais ça. Hmm. mais est-ce mën nañ ko yaakaar dans la mesure où ñaari yooyu ba tey ñu ngi fi. léegi man ma ma man li ma xalaatoon si loolu moo la. Hmm. d'ailleurs ma bokk na si li ma indi. oui il faut que ñu am honnêteté. sende ñaar yooyu. sende ñaar yooyu. Sénégal daf tollu diggante. dafi xew la fi masula xew. moo la li wax ne la république et en danger ba fekkente ne république bi dax nekk en danger la stabilité du pays nekk en danger le premier responsable bi nga xamante ne dañ ko war a jàppale si mu delloo république bi ni mu ni ni mu tooge moo le président de la république lui-même et dans ce cas mm-hmm. il faut que ñun ñun ñëpp tous les sénégalais unanimement ñu def benn bloc derrière le président de la république pour protéger la république le président de la République je dis bien. Ouais. mais malheureusement mënuñu ko dissocier ak le chef de parti maintenant assis là c'est la République c'est la nation qui est en danger bu fekkente ne la nation en danger responsabilité la aw journaliste. u bàyyim xel loolu. le président de la république ak le chef de parti au Sénégal dafa yàgg nekk benn benn benn benn nit. waaw mu ne benn nit la mooy euh, souvent président bi day def jëf yoo xam ne intérêt partem moom moo ci jiitu. waaw mais Momadou. benn tey xam naa ne le président de la république ah Macky président de la l'APR du benn. Mhm. ba fekkente ne ndax taali université ba fekkente ne ay commerce ay banque in dañu taal si dëkk bi ba fekkente ne ak nit ndax jog oote mu ne cooki fin te Sénégal mënu la fin mhm. ma ni dëkk stabilité dëkk bi leen menacé dans ce cas il faut que ñun unanimement comme ni ko ci ka nekk xam na ne Thierno Alassane Sall àndul ak président Macky Sall. ndax mhm. jóg condamné li. tey si bëccëg dégg na ma Serigne Baara Baara. Euh, l'honorable Baara Dolli. mu wax wax bu am solo mu ni. Mhm. ba ma sañoon ba ginnaaw suba yéen daanu. waaye lii ñi def nii ànduma si tey ànduma si suba. position responsable. responsable position boobu noonu man moom indi woon. Mhm. bëggoon na wax Sénégal yëpp fa ñu mën a nekk. intellectuels yi kilifa yi ñu def un bloc pour le moment uh -huh. d'accord derrière le président après nag ba pare ba pare yéene sa wëjj yéene sa wëjj la bon mënu la tax u yàlla na ci cinal kër gi daanu bon danoo fande ça c'est vrai kenn ci ba paree ba noppi ba pare ba noppi comme président may na bunte bon waxtaane politique troisième mandat ba boobaa in waxtaan leneen mais ban jël lii in def ko porondol la in defee in dasee xoj président Macky Sall in sonal ka mhm. ba boobaa nun ñëpp la noo nu boppal la noo xoj mhm. d'accord ba cin li tuuroo nun ñëpp noo la àndan ah. dëñe fi mu bëggoon a ñëw ak yow la part des choses entre mhm. le président de la République qui appelle à la rescousse de la nation ah le président de de de de Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne in bëggul mu def troisième mandat ña si bare bëgguñu ko man mii bokk na ma si ñi xamante ne manque kaa ñaan ndax jàpp na ma ne moo di ndamam. d'accord.